le président de la république de baaxoo ci événement yu melni mu duggal ci loxom ngir gëna mëna dimbali population bi def ci yenen programme aussi mais rawatina tabaski bi nga xamné ñun ñëpp euh, biñu ñu touti tank ba fiñu tollu toll musuñu ko négliger donc bokku na ci fête yi gëna reuy ci yiñu am fi ci Sénégal bon su ñu déggee ne président de la république mu ngi tàllal loxoom euh, population bi ñu nekk Biscuiterie yi te xëy na loxoom du mun a jot ci militant bu nekk ci sénégalais bu nekk ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay relais dans les communes war nañu ñun tamit génne euh, euh, roy ko ci loolu muy def ci fii nga xam ne mooy gox yi ñu dëkk loolu nag dañ ko yàgg a def. depuis ñu nous Amérique ba léegi nous nous def ci biir commune bi nous at bu jot dinañ ay at euh, pomme de terre nous avons joxé nañ fi ceeb joxé nañ fi euh, diwlin sucre, euh, gel etc. donc bi on ne pouvait pas rater l'occasion aussi baxantal ko ci li nga def donc enveloppe On a choisi euh, des enveloppes entre 10 entre, entre, 000. et enveloppe 100 000 francs euh, on a on a au moins 200 euh, enveloppes tay ñu mom lañu 200 femmes jappalé len ko ci tabaski joxe nañu au moins euh, cette année aussi plus de 200 xar ci au niveau du territoire national ak ñi nga xam ne nekk nañu fii ci biir Biscuiterie yi loolu yëpp nag lu du dara lu dul euh, mbokkum jullit buy jàppale mbokkum jullitam rek lañ ko teg waaw ndax amul xàjj ak seen ci joxe bi amul kenn kuñ ciy tànn parti boo bokk religion boo bokk déedéet dañu woote waa yi soxna Biscuiterie yi ñu ne leen lii ñu ñoo leen ko dimbali ñun Arouna Coumba Ndoffène Diouf ci seen dugg tabaski waaw ñu ngi ñaan yàlla nag mu may ñu ba nga xam ne yii ay enveloppe la waaye beneen yoon ku ci nekk dinañ la wàccal xar sa biir kër. waaw euh, sànq dama leen koy fàttali ne leen feebar bi jógewu fi au contraire dafa gën a yokk. président ci yërmandeem xam ne tamit dañu am population boo xam ne ñu ci bëri ay góor góorgóorlu lañu moo waral mu wàññi euh, mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko muy mesure de confinement yi ndax mënuñu woon dëkkee rek continuer ci confinement nit yi dañuy liggéey alors euh, ci loolu teewul feebar bi mu ngi fi te tey la fi gën a yokk waaye li ñu war a njëkk a def mooy képp koo xam ne am nga ci mag bu nekk ci yow Nous sommes les parents, les nous sommes les protégés. Nous sommes les protégés. Nous sommes les confinés. Dans le secteur, nous les personnes à risque. les tranche d'âge, 60 euh, euh, ans, 95 ans, 100 ans, nous sommes les protégés waaw nañ leen confiner sax s'il le faut euh, ñi nga xam ne aussi am nañu feebaru sëqët wala feebaru euh, asthme wala hypertension wala diabète waaw ñooñu tamit nañ leen confiner fii mu toll ñun déconfiné nañu ñi nga xam ne xëy na la leen wërgu yaram yëguñu dara waaye fii ñu toll nii nag la ñu war a confiner ñi nga xam c'est des personnes à risque te loolu responsabilité képp ku dëkk ak personne à risque sa responsabilité la waaw donc euh, loolu laa leen message boo xam ne moom laa leen joxoon waaw jërëjëf.